ñu mun a waxtaan ak euh, les jeunes ak les les différentes associations qui sont là donc damay commencer nuyu la nous, monsieur Diaw bon nee na moom dafa ñëw comme en euh, casquette président. je sais que nee aussi représentant le président du conseil départemental. vraiment il y a des des efforts très très loin, surtout dans ci domaine bi ma concerné muy wàllu sport. c'est pas la première fois ma ñëw fii ci ay remise de subvention ñëw naa fi beneen yoon aussi ci ay remise de ballon yu ñu doon may les les différentes structures sportives même ba yeneen communes yi sax jot nañ leen ci jox seen euh, seen part donc ñu ngi la ci encouragé di la félicité am na ay kàddu yoo xam ne jot nañ fi jip ñoo xam ne dañuy demandé que nga dolli gën a dolli say effort je sais que am nga volonté bi et ce qui est sûr pour les années à venir on va avoir encore un peu plus euh, leneen de ma ci euh, dolli moo di nga jéem essayer élargir parce que am na ko wax tuuti ci problème de randonnée mais euh, c'est pas la première fois aussi que wax ci l'amour. lamb ñi ngi wax football ay karaté basket mais nañ ci boole lamb parce que boo dans tout le département commune bi monde concerné mais dans tout le département nous, nga fenn une arène pour l'année donc nous avons ñu jëm ci effort à ce niveau parce que le sport bi diversifié le département est visible au niveau national day donc euh, je suis sûr que dina am des efforts à, ce niveau mais toujours est-il que au fil des années nous ngi vraiment effort yi ngeen di def donc nous ngi leen et bu ma jàllee ci association de de jeunes yi féliciter pour cette année parce que bi ñu suspendre la réunion habituelle ñu fi je ne vous ai pas raté les les associations sportives mais j'ai vu que ren vraiment dañu démarrer dans de très bonnes conditions Machi yi ñu ngi dem amul problème donc je les féliciter di leen ñaax pour que nous continuions dans continuer sens la dernière fois randonnée bi c'était dans ce sens là dugg nañ ba ci stade bi sensibiliser waaw xaw perturbé perturber tuuti de ngeen ñu mais c'était pour dire que nous, nañu football nous suñu biir parce que les gens se connaissent Puis, ñëpp ne war nañu nous football, nous football ba football. yi jeex yenn problème yi du fi am ensuite mairie le conseil départemental ñi ngi def des efforts pour vous appuyer euh, le président de la zone 1, wax na ko en retour les ASC ont fait ay actions citoyennes yoo ont fait war ngeen bu ci dëkk bi yëpp mais ku ci nekk sa biir koñ vraiment am na loo xam ne lii war nga ko mën def ce matin rek ñi ngi woon ci euh, poste de santé bu Kër El le maire laa di fa la ñu nekkoon pour nettoyer ñoom dañ ko programmé woon ñun ñu associé ci la journée nationale euh, du set setal ñëw en appui pour jàppale leen et je crois que dina am réunion boo xam ne bii le préfet dina ko convoqué ce sera dans ce dans ce sens là pour que équipe yi association yi ku ci nekk ci sa biir quartier avant l'ouverture des classes

ni ñu commencé nañu ñaan ñu terminer ko noonu et euh, di leen wax vraiment jërëjëf ah. waaw. ñu sañoon sax yenn ASC yi sa réunion de quartier yi ñuy def na def station boobu gën leen sensibiliser violence bi ak yeneen yi. ak kàddu gi ci tool. vraiment pour tout le travail que tu fais ici actuellement ñi ci des aussi na seen xel dal yaakaar naa maanaam mën na ko seede bëri na activités yi fi def ay corpo ak yeneen yu demee noonu à chaque fois ñu soxla ko ñun dinañ ci appuyer sax buñ jaaree ci moom lu ëpp dina xam ne naka lañ ko fi tey ndax wala dafa naan lu jiwoo jeexul jógul merci beaucoup voilà donc la séance